dëkkub Daaru Muxti bi jàpp naa ne képp koo xam ne kii am nga xel wala ngay xalaat wala nga bëgg lu baax mbir moomu war naa rëy ci yow te war nga ko xoolaat bu baax a baax loolu moo tax ginnaaw bañ ma yëgalee ne baayam ak maamam ñëw nañu fi waaye jotuñu maa gis téréewul maa ngi topp di dégloo ko xool li nga xam ne fa la mbir yee mujj ba ci dencub ki nga xam ne moom la lor ñuy ñaan yàlla sunu boroom mu yërëm ko te jéggal ko te ni ñu ko lore la nga xam ne moom la boroom xam-xam yépp nangu ne kuñ ko doxe ku ñu reyee noonu sunu boroom dana la jëggal yàlla na ko ko yàlla defal leneen la ca des mooy ki nga xam ne mooy ki ko def nga xam ne man mii la ñu ko tudde maa ngi ñaan di wax sous-préfet bi nga xam ne moo nekkal nguur gi ci dëkk bi ak mbooleem ñi mu ko seqal lépp loo xam ne yoon def na ko ci nañu ko ca def loolu mooy li nga xam ne mooy li war te mooy li jaadu lu dul dëgg nun fii ci kër sëriñ ab Abdou Khoudous daf noo jàngaloon moom Serigne Abdou Khoudous lu dul dëgg desu ci ànd ak su fekkoon ne tey ci suñ biir njabootuk bopp koo xam ne sa doomi bopp la sax moo ko defoon nit duñ ko far waxuma laa keneen kon maa ngi ñaan sous-préfet ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la àndal nekkal fii nguur gi lépp loo xam ne yoon def na ko rek nañ ko ca def di wax maamam ak way juram fu mu mën a nekk nañu fexe ba génne ko ndax nit ki moom mënta def lu rëy lu toll noonu ba noppi ñu ne gisatu ko loolu mënul nekk ndax yàlla moo bari sutura ak barab bi ni mu bindoo waaye lu raw loolu mënoon na cee am. kon nag ginnaaw bi ñu jaalee ay waajuram moom aji dem ji mooy Moustapha May Fall moomu. jaal ko ay bokkam jaal ko ay dëkkandoom ñu ngi koy jaal waa dëkk bi yëpp. waaye li ma bëgg mu gàtt daal moom mooy. ñu xam ne lu dul dëgg duñ ca far kenn. loolu la nu sëriñ Abdou Khoudous nàmbutal te loolu la ñu fas yéenee di wéyal. képp koo xam ne kii da ngaa bëgg. loo nekk noo ànd ci ak yow na nekk ci dëgg. waaye ku nekkul ci dëgg moom mënuñu ànd ak yow ci dara loola nag bëgg naa moom képp ku ko dégg ku ne nga xamee ko noonu jàppe ko noonu ku ko gis te xamoon ko nga xam ne moom mii mooy ki nga xam ne moom la ñu wax ne moo def jëf ji ak fu mu mën a nekk jëbal ko yoon loolu mooy li nga xam ne mooy li war a am di wax maamam ak baayam nag benn xeetu jéego dox bu dul boo xam ne bii fes ko yéene génne wane ko yoon def ci moom la mu ca war a def bu ñu ko defee defuñu lañ war a def loolu mooy li nga xam ne mooy li leen ca war kon nag xew-xew bu ñëw bu nekk am na lu mu la war a jàngal lu mu la war a jàngal mooy fi ma tàmbalee woon ku ñu tuddee Basiru Mbàkke moom Serigne Abdul Xudoos jël jaasi deg ko ci kaw ku ñuy tuddee Serigne Moustapha May ci biir pencum Daaru Muxti mi yaakaar naa ne loolu kenn wusoon mën a xalaat ne loolu war na fee mën a am ñu xalaat bu baax nag ne ëllëg bu fekkee ne yar bi war amut moo xam xeet wu mën a doon ci sunu biir wala fa xalpulaaroo naar ak leneen a ci am bu fekkee ne yar bi niñ ko war a defee defewuñ ko ni nañu xam ne yàqute dikk na te loolu nag lu mat a lu mat a mat a fànq la balaa moo weesu foofu lii rek dafa ëpp ak yeneen ya ko jiitu woon sama kàddu daal moom mooy euh, jaale naa leen jaale ko ay bokkam jaale ko dëkk bi te wax yoon lépp lu ci yoon war a def na ko ca def ba mu sëkk képp ko xam jëmmam te xam fu mu nekk na ko génne ay way juróom ay ay ay ay ay bokkam mu mën a nekk nañ ko génne nit du lor bakkan doomu aadama boo xam ne wëpp dara jotu ko sequ leen dara nga jël jaas ci teg ci kaw ba noppi ne nangi faw loolu mënul nekk nañu fexe ba wane ko teg ko ci yoon yoon def la ci la ci yoon def nit nag lu mu lu mu liggéey lu nekk moo koy añe lu ko ca fekk moo ko def boppam maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp tey ñaan yàlla sunu boroom mu yemale ko fi jàmm rek di fi xew jër a ngeen jëf te it ñu xam ne lii lépp bu déggee ñu di ko wax mooy bi ñu atte woowul ci lislaam waaye bu fekkoon ate lislaam la ñuy doxal kon noonu mu def Moustapha May Fall noonu lañ koy dal di def ku rey ñu rey la waaye ndegam atte woowuñu lislaam nag li fi dib atte loola mooy la nga xam ne barab bu ne la fa ñuul moo fa di am ña kon li li ñu baaxoo atte ci li nga xam ne mooy xew ci réew mi ci lu noonu nañ ko ci def ba mat sëkk jërë ngeen